maa ngi nuyu waa senegal yëpp ci biir réew mi ak ci biti réew bi ci turu Modab man maa ngi tudd Cheikh Tahir Fall jiite kuréelu Modab dëkk biir di Sëriñ Daara maa ngi nuyu mbooleem ku ëmbal suñu réew mu neex mu tedd mu rëy mi am solo mi ci xolam jàmm te yéene ko dal te defe naa ni loolu mooy li ñu gën a partagé ci biir réew ndax jàmm ci la développement di amee ci la jaamu yàlla di ame ci la lépp di ame maa ngi tàmbali sama kàddu ci sant waa kuréelu Modab Modab doomu daara yi la ay sëriñ xalifa ñoo ca nekk ak seen njaboot ay imaam ay jàngalekatu alquran ay ndayu daara ay baayu daara tey ñi ngi am suñu frère bokk ci église bi ndax yëg-yëgu ngëm ak yëg-yëgu mbaax tax mu ñëw ñu ngi sant bu baax ci kàddoom yu rafet muy suñu gan tey ñi ngi leen di sant parce que defe naa ni bi lu jiitu kuréel gi di sosu ak gannaaw ba mu sosoo nelawatuñu yendalatuñu fanaanatuñu ci ñaan ak jël seen alal seen temps ñoom sëriñ si di ñaanal président Ousmane Sonko te ñaanal ko ku xam fi mu toll tey ci réew mi toll ci tollu ko ci àddina danga nangu ni ñaanal ko mooy ñaanal senegal yëpp ñooñe koy ñaanal mësuñu ko gis sax te ay junni junni lañ xamuñu ko sax waaye bëgg lu baax rek ak yéene senegaal lu baax ak yor xolu gor xolu gor gor du nangu seetaan ku ñuy bundu loolu gor nanguwu ko yonent bi waxoon na ko saxaaba yi ni leen dem leen Najaashi yi nasaraan la ma nga nekkoon Éthiopie moom day du nangu du tooñ te du nangu ku ñu tooñ ci kanamam laa yazlimu wala yuzlamu indahu buur siin kumbandoo feen juuf bi ñu jàppee Serigne Touba persécuté ko tuumaal ko de terroriste de terroriste buur siin kumbandoo feen juuf nekkul woon jullit ci moment boobu dafa taxaw ni lii ngeen di tuumaal Serigne Touba dara du ci dëgg parce que gor la woon gor day nekk ci dëgg bu neexee ak bu naqaree kon ñi ngi leen di gërëm ci taxawaay boobu position MODAP ci actualité yépp dañ leen koy wax position buy balle ci alxuraan la ñun duñu làmbatu suñuy position xamuñu calcul politique xamuñu parparloo lépp lu ñuy def ku ñuy jàppale wala ku ñuy àndal parce que dañoo am suñu conviction ci suñu diine bu ñu ci dugal bis boo xamante ni téere bii wax nañu lu ñu ñu ñu def dara loola lu métti métti danañ ko jéem suñ ko mënul ñu xam ne mënuñu ko parce que loolu mooy ñun li ñuy tuddee doomu daara ku ne nag sañ nga la nga gëm waa église baa ngi ña nga am seen téere am seen loi keneen noonu keneen noonu Sénégal ñooñu bu ñu nangoontee ku nekk nangul sa la mu la mu gëm ak la muy dund defe naa ni jàmm dana am te loolu yàgg na ci réew yàgg na ci réew suñu demee ci suñu téere bi yàlla daf ñu digal te ndigal li tey dañ koy jottali président son excellence président Macky Sall jàppale ko fàttali ko waxak moom loolu jàppale Sénégal la ndax fi mu taxaw la fii ak mi ngi nekk président de la république xool ko bëtub Sénégal yëpp parce que légalité loolu lay lool lay loolu lay loolu lay laaj su boobaa dañ koy fàttali nag dañuy jël benn buur bu ñuy wax yonent yàlla Suleymaan wax ko ni ko président Sall déglu sa peuple dégg leen déggal leen du faiblesse faiblesse du bon waaye dignité la grandeur la loyauté la parce que peuple boobu seen yëf nga yor kon boo leen déggee boo leen dégloo mooy danga ngaa matal kóllëre gi dox sa digg ak moom lu ñu tuuti tuuti da nga leen war a déglu lu ñu rëy rëy da leen a war a déglu yonent yàlla Suleymaan yonent la buur la yonent la buur la kon mën nañoo jànge ci moom nu ñuy yore pouvoir mën nañoo jànge ci moom ni ñuy yore pouvoir yonte yàlla Suleymaan yàlla da ko tàggataloon àddina ñëpp di ay peuple nit ña jinne ya lépp ba ci rabi àll yi mu am ku tuuti ci peuple am muy xorondom fourmi fourmi booy jàng alxuraan am na saar wu tudd fourmi suuratu naml Souleymane di dem ànd ak soldaaram yi généraux yi di def démonstration de force di wone doole dem ba ëgsi ci këru xorondom yi bi mu ba ci këru xorondom yi benn xorondom bu tuuti génn xataa ida ataw ala waadi namli qaalat namlatun yaa ayyuha nnamlu duxulu masakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuuduhu wa hum laa yashcuruun bi mu ñëwee ba si ci xur wi benn xorondom génn di def discours à la nation wax ak son xorondom boobu mën nañ ko tuddee honorable xorondom parce que taxawaayu député la taxaw mu ni yéen xorondom yi suleymaan a ngi ñëw te bu ñëwee da leen di maate da leen di rey yéen ñëpp du ko tey sax mais dooleem àgg na ci bu jaaree fi ngeen dëkk daleen leen di rey yéen ñëpp kon nag dugg leen ci seen biir pax yi balaa Souleymane ñëw tey wax rôlu député taxunoo jóg moo tax kon du ñu taxaw ci xorondom mais ñi ngi wax réaction Souleymane bi mu déggee xorondom bi foofu lañu jëm tey xorondom ni mu tuutee ni mu ñàkke solo ci wàllu dayo ci wàllu rëyaay ci wàllu man-man ci peuple Souleymane la bokk Souleymane da koo déglu xerewlu li mu wax Souleymane ba mu dégloo waxu xorondom bi lan la xorondom bi doon wax lu protéger peuple la violent yéen xorondom yi dugg leen ci seen kër yi balaa Souleymane a ñëw bu ñëwee da leen di rey il a annoncé un danger proposé une solution jeex na mais wane na ni Souleymane du ko def parce que dafa jubloo leen gaañ leen mais danger buy ñëw la moytu leen Souleymane dégg xorondom bi ba mu dégloo xorondom bi lan mooy réaction am fa tabassama daaxikan min qawliha dafa ree ñaar yooyu duñu daje ñaare ci làngu arab foofu rek lu mel noonu lay daje tabassum mooy sourire avant ree ngay ree daaxikan mooy ree carrément mu boole ñaar yëpp Souleymane muuñ daal di ree lu muy ree waxu xorondom bi président Macky Sall son excellence Souleymane la ëpp daraja ëpp la pouvoir ëpp la maqaama ci yàlla ëpp la sañ-sañ peuple Sénégal bi xorondom peuple bi ñoo ko ñoo ëpp xorondom daraja ëpp ko maqaama parce que ay nit lañu te xorondom xorondom la waaye xorondom bi dégg na yo euh, Souleymane dégg na waxu xorondom reeca ni maa ngi sant yàlla déggal li Souleymane wax maa ngi sant yàlla mi ma jox xéewalu dégg sama peuple fa tabassama daaxikan min qawliha kon dégg sa peuple comprendre seen message man koo recevoir man koo déchiffrer man caa jëfe loolu dama ni du mbon du faiblesse du manque ñàkk dignité mais grandeur la mbaax la suleymaan mii fi mu toll fa tabassama daaxikan min qawliha wa qaala rabbi awzicni an ashkura nicmataka allati anamta alay mu ni man yow yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ba xéewal gii nga ma defal ma di la ci sant mooy xéewalu ci gën a tuuti ci sama peuple may dégg xalaatam di ko comprendre duma mer duma ko jàppe noonu duma xuloog moom mais damay comprendre ni lii mooy demandam te sañ na ko ma fekk si ko Souleymane loolu la wax yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa pour indi beneen citation ñun ñëpp di ay jullit nekk ci daara yi dañoo am benn modèle unique mu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak tariqa boo mën a bokk kooku mën nañ la indil ay exemple junniy exemple bu mu wàccee fekk ci peuple te doo wax ni dafa ñàkk xam-xam dafa ñàkk ku muy waxal kuy wax ak Jibril di wax ak yàlla mu lay wax ne yàlla nee na nangam nangam kooku soxlawul ku tuuti nit ku tuuti di ko gàgganti bu amoon ku doyloo xelam kooku lay doon waaye kooku moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare badar li tax ñu gañe ko ci wàllu wàllum matériellement buñ ko analyser bokk na ci mu taxaw ci barab benn waaye ñëw ne ko yow yonent yàlla bi fii nga taxaw baaxul jógeel fii dem fee position bii moo baax mu fekk si ko ko xare xandax li tax mu gañe ko dafa defar ay stratégie ba pare benn waaye bu tudd Salmaanul Farisi ñëw ni ko nii ngay def pour ñu gañe xare bi mu bàyyi la mu jàppoon fekk si waa ji foofa lan lañ jublu ci wax jooju mooy ngën gi mbindéef ñun ñëpp ñu koy roy te bëgg a mel ni moom daf doon déglu peuple daf doon déglu ñi nga xam ni moo leen di jox xam-xam moo leen di yar lu ñu bëgg ci àddina ci xam ci lu baax ci moom lañ koy jële mais da leen di déglu parce que ay nit lañ te yàlla lëfa yëfam mën na koo jaarale fu ne yàlla ak mbaaxam bu koy indi ci yow mën na koo jaarale fu ne kon président Macky dañoo bëggoon message boobu nga xam ni ci biir alxuraan lañ ko tibbe ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi muy lu wóor lu ñu jàng lu leer te ñu indil la ci ay exemple mu daje nag ak nga ubbi benn dynamique man dynamique laa koy tudd bëgguñu ñaanuñu yàlla mu nekk benn fait isole wala acte isole bañ a bañ a bokk bañ a def troisième manda bu nekkee acte isolé yi ci des yëpp delluwaat ca problème ya loolu amul njariñ ci sama gis-gis mais mu tàmbali nekk benn dynamique dynamique mooy loo xam ne da nga koy tàmbali di ko topp ba ba ca ba mu jëm ñaareelu acte bi man defe naa ni lu nit ñàkk-ñàkk xam-xam ñàkk-ñàkk seetlu ànd nga ak président Ousmane Sonko àndoog moom Pastef nga bokk wala bokk bokkoo ci di nga nangu ni candidature président Ousmane Sonko demande sociale la demande sociale la tollul sax ni xalaatu xorondom ba fa mu toll mooy loo xam ni ñi la jox réew mi moom ko mandaté la fal la nga leen di liggéeyal ñu di la fay saleer ñoo taxaw ni nangam lañ bëgg demande sociale la mënul nekk nag déclencher dynamique gu jàmm di ko woote ba pare seet demande sociale bu toll ni candidature président Ousmane Sonko nga ni du ma ci d'accord waxuma ni loolu la wax waaye li ñu gis mooy candidature am am na ay jaxasoo ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu bàyyi muy am di continuer te nangu ni moom candidature am demande sociale la damaa defe ni loolu am na tuuti safaanoo ak wane ni euh, jàmm la ñuy wut ñun ñëpp. am nañ ci yaakaar nag parce que président Macky Sall moo waxal boppam ni jàmm Sénégal moo ko gënal jàmmam moom loolu nag daf ñoo neex lool te di ko ci sant tam ñu nekkuñu fi rek di sànni xeer mm. ku wax lu baax def lu baax dañ lay gërëm président Macky Sall def na lu baax. lu baax la nag nekk fi naan euh, euh, constitution bi mayoon na ko ko wala mayu ko ko nit dana am lu ko war te du ko def nit am na lu ko war te defu ko kon ki def li ko war ñun dañ koy sant ci loolu mais encouragé ko nag ni ko lii nga def Sénégal sedd guy nit ñi féex soo continuer ci lancé bi jàmm dana am téere yi nag xam nga lu ñu wax loo gis la ca mujj moo gën président Macky Sall li ñu lay ñaanal mooy mujj gu rafet yàlla na la ko yàlla defal waaye mujj gu rafet nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni al umuru bi xawaatimiha mandat boo am di ko jeexal fa muy jeexe la waroon a rafete waru faa ñaawe lépp looy def ci àddina dunduk nit ki sax boo demee ba muy jeex fa la war a rafete booy jeexal sa mandat de loolu mooy mujj gu rafet yàlla na la ko yàlla defal waaye nag mujj gu rafet gi mooy blocage yi nekk ci réew mi ñu nga ci benn ba ca jiitu mooy prisonnier yi fi suñu frères yi tudd Cheikh Omar Bamba Diop muy coordonnateur kuréel kuréel gi Cheikh Omar Bamba ñu xam ko muy nit koo xam ni boo ko gisee bëñam ngay njëkk a gis di ko yiw di taalibe Serigne Touba akkan di taalibe maam Thierno Birahim lancé fi slogan wu xam Thierno jot na nangami junni jeune topp ci gannaawam di ko déglu muy leader d'opinion bu am solo mais di wootekat di waxkat lu baax xamuñu ba tey lu def xamuñu kenn xamul mënuñu ñun xamuñu beraluma ko moom kàddu gi mais ñeneen ñam fa nekkandool ñiñ ci xam li ñu xam lañuy wax ci ñoom xamuñu ci Cheikh Bara Ndiaye acte de violence ay kàddoom nag mën nga cee d'accord mën nga cee bañ a d'accord chroniqueur la xamuñu ci oustaz Assane Seck acte de violence te ñoo ñëpp xam nañu leen ñu ay nit ñu baax ñoo xam ni njaboot a nekk seen gannaaw keroog bi ñu demee ci oustaz Assane Seck di ko yóbbul xarum tëbës di ko jàppale wallahi jooy nañu suñ bi sedda ci fekk njabootam ñu di ay nit ñu baax koñ ba yépp koñ ba yépp dëkk ba mu dëkk yépp nekk ku ko bàyyi xel kuy mettitlu sëriñ Assane Mbacke waaw sëñ waaw ak ñu bari ñoo xam ni sëñ Ibrahima Gueye ñu bari sëñ Ibrahima Gueye nay leer ñu bari ñoo xam ni tey ñu ngi ci kaso yi te bu ñu nekkee ci kaso yi dañoo jàpp ni day jafe ñu ni dañuy apaiser ci dëkk bi ñu ñaan ñu bàyyi leen te dellu nag ci taabal ji waxtaan le Sénégal est un pays de dialogue dialogue nag ci dégginu lislaam mooy ñaar ñu wuute waaye ñu bokk xalaat bu ñuy waxtaan loolu du dialogue ñu bokkul xalaat bu ñu toogee di waxtaan ñoo loolu mooy dialogue ci alxuraan te bu ñu dajeet dañuy nekk ay nawle qul yaa ahlal kitaabi taalaw yàlla dafay woo suñu frère catholique yi suñu frère juif yi les musulmans ni kaay leen dialogue ci alxuraan bu ñuy dialogue xam nga lan lañu yàlla wax nee na kaay leen ñu ñëw ci benn baat boo xam ni ñun ñëpp ñoo ca bokk yam bu fekkee jàppewu ma la nawle wala yow jàppewoo ma nawle ñu bëgg a dialogue dialogue du am taalaw ila bay sawaa'in naan baat boo xam ne ñun ñëpp a ci bokk yam ca biir dialogue bi bëgguma du dialogue la ñuy waxtaane mais dañ ciy junj nga gis yàlla wax ñu ni bu ñuy dialogué nañu góorgóorlu ba an laa yattaxida baaduna baadan arbaban min dunillah bu ñenn ci ñun yëkkati seen bopp ba jël palaasu yàlla ci kaw ñenn ñi bu ñenn ci ñun jàppee ñenn yàlla nañu jàppante ay nawle loolu mooy dialogue bu wuute amul dialogue du am bu wuute amee dialogue dafa yaraan dialogue boobu nag mooy ñaari président président euh, son excellence président Macky Sall dégg nañ ko mu wax ne mi ngi tàllal loxoom te yaakaar naa ni ku wax ni maa ngi tàllal sama loxo gannaaw boo dialogué ba noppi kon da ngaa da ngaa ni am na ku des loolu ngay wax xanaa tàllalul loxoom ñoom doon dialoguel de kon benn ñaareel bi président Sonko dégg nañ ko mu wax ni moom nangu naa jalo dialogué mais moom nit ku diiñ la suy dialogué du dialogué fekk baat bi dañ caa teg kaaka noonu la ko waxe bu ma déggee français loolu la wax kon kooku bañul dialogue li muy bañ mooy chantage li muy bañ mooy chantage kon waxtaan woowu ki nekk nekk sa nawle li nga am ci say àqu ñu jox la ko li nga moom ñu jox la ko ñu toog waxtaan lu ñuy def ak Sénégal dama jàpp ni loolu moo jot kon ñi ngi ñaan président Macky sàll mooy suñu njiit fii ak di nekk ñu ànd ak moom gunge ko jàppale ko ci lam nekk waaye ñaan ko liy defar di rafetal réew mi ñu ñaan ko ko sañ na ko sañ nañ ko parce que ay nit yu diine lañu ci loolu la ñuy xëy di ci gont di annoncé tam pour tëj kàddu gi bi su ñaan boo xam ni euh, di annoncé bi su ñaan boo xam ni dañu koy def ci 46 départements yëpp waa MODAP di ko def ci seeni njiit ñaanal président Ousmane sonk dañ ko doon ñaanal mosuñu koo bàyyi te fayuñu dara pour ñu ñaanal ko wu ko sax ñun ñoo bëgg di ko ñaanal ci suñu gëm-gëmu bopp ak suñu engagement bopp tey fii mu nekk nii mi ngi ci loo xam ni ñun liñ nekk moo gën a neex lam nekk kenn ku ne ci ñun yaa ngi dox say soxla di resevoir say gan di génn di dem di dund li ngay dund mais président Ousmane Sonko mi ngi ci këram du recevoir du génn doxi loolu ñu ngi ñaan mu teggiku mu teggiku nañu teggi loolu ci moom mu doxi soxlaam comme ñëpp ñi ngi ñaan loolu waaye tam di ñaan mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci département yi di membre yi MODAP wala ñuy ay nit yoo xam ni daara da leen ñor Sénégal ñor leen ñu ne ci ñu ànd le 15 boobu nga xam ni le quinze boobu nga xam ni parti bi defe naa am na lu ñu ciy def investiture waaye ñun suñu wàll ñun suñu wàll ñun mooy ñaan danañ bokk ci activité yépp waaye nag dafa am lu ñu yàlla jox muy église bi muy daara ji dafa am lu ñu yàlla féetale mooy tàllal loxo yàlla ñaan ko te ku ne sañ na ko yàlla na yàlla def ci jàmm Sénégal yàlla na ci yàlla def jàmm yàlla na yàlla dëppale xol yi yàlla na fi yàlla indi dëgg-dëgg dëppoo ba suñu réew mi ki ñu yàlla tànnal yàlla jox ko jox ko ko sunu gëm-gëm mooy président Ousmane Sonko ku ñu ci génne tam nga xam ne danga ñoo yey mais ku ñu ci mënta yey loolu lañu gëm amuñu benn euh, sikki sàkka ci ni moom président Sonko mi ñu xam yar ko ñun waa Daara. jàngal ko yar ko bu dégg boo déggee mu wax alxuraan nga xam ni kii am na fu mu waaju président Ousmane Sonko moom xamuñu ci moom bon xamuñu ci moom soxor li ñu xam ci moom mooy bëgg dëgg li ñu xam ci moom mooy générosité li ñu xam ci moom mooy baax ba mel ni sax ku ñàkk fayda loolu la ñu xam ci moom ñi ñaan yàlla subhaanahu wa taala defal ñu jàmm defal leen ko maa ngi tëj kàddu gi foofu waaw di sant kilifa yi koy jàppale yëpp. ñooñu itam ñooy suñuy sëriñ sëñ Abdou Mbacke dafa tukki waxoon na day ñëw ci jataay bi waaye tukkee tax ñëwul sëñ Cheikhum sëñ Saleh sëñ Falloum sëriñ Chouaïbou ay ay kilifa yu bari ñoo xam ne mënuñu leen a tudd fii ci jataay bi waaye boo gisee ñu di leen junj parce que waa Modab dañuy jokkook ñooñu di jëflanteeg ñooñu ñun ñoom ñooñu suñuy kilifa la te dañ ñoo ñemeloo. parce que sëñ Cheikh xam nañ ni kenn du ko nax jàng na ba jàng jotee xam na sëriñ Saalixu Mbàkke jur la yar la ba toqi la ba nga toll ni nga toll kooku kenn du la trompé kon ñun suñu seetu la tax nañu ñeme ñu mel noonu ñu ngi ci ànd ak moom te yàlla xam na ni ñooñu duñu ay politiciens duñu falu dara wutuñu dara ci réew mi li leen tax a jóg mooy lu defar réew mi ak lu ko baax ak gis ku baax nangu ak mbaax loolu rek la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.